الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله أيين بك جلدي نيجي سنت سني بروم سبحانه وتعالى di seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede na yenentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam la doyloo woon yónni ko ci ñun yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy topp ba ila yawmi din gannaaw loolu mbokk julit suñu borom yàlla moo ñu bind indi ñu ci kaw suuf ngir natt ñu bind ñu ci ay coono amul lenn lu mën a musal doomu aadama ba mucc ci jafe-jafe du ne président nga wala milliardaire nga dina borom xam-xam nga wala jaahil nga fokk nga dund ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu nag mbokk julit nekk na loo xamee ne nii julit bu nekk war naa xam ana moom naka lay def ba loolee woyof ci moom doonte ne boo demee ci ñeneen ñu dul julit jàpp nañ ne am na yeneen solution yu ko mën a régler waaye buñ demee ba dajale solution yooyu yëpp dañuy fekk ne lañ bëggoon mu réglé réglé wul amma yow julit xamal ne lay génne doomu aadama bi ci jafe-jafe yi adduna jafe-jafe yooyu bu ci génn nit mu woyof ci moom lool mooy nga fexe dëggal ragal sa boroom subhanahu wa taala ci li nëbb ak li feeñ nga dëggal di dellu ci sa boroom guddi ak bëccëg di toroxlu ci kanamam suñu boroom yàlla day moo dig ne képp koo xam ne da koo ragal def ay ndigalam bàyyi tereem xat-xat yam nekk dana ko ci génne dana ko wërsëgal fu mu ko yaakaarewul woon ca ku wékk say mbir sa borom day yàlla dana la doy suñu borom yàlla teg ci it ne képp ku ragal yàlla dana def ay yombal ci ay mbiram loolu moo tax ba ngalaway jurit xam leen ne bokk na ci moyen yooyu doomu aadama bi di toroxlu pour jëm ci boroomam pour jébbulul boroomam la nga xam ne yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam dénkoon na ko lenn ci ay sahaaba ca mooy jubluwaayu suñu xutbam tey ca mooy la nga xam ne mooy ngëneel yi nekk ci wax laa hawla wala quwwata illa billah mbokk suñu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam daje na ak benn sahaaba ñu koy wax abu musa al ashari mu ne koy abu musa maa ngi lay dénk ngay wax la hawla wala quwwata illa billah xamal ne loolu day benn denc la ci denc ajjana yi ab denc comme na nga xamee ne nii noonu la ko imam Nawawi solo mu ne lii day boo ko waxee fay la buñ lay dencal ca àllaaxira goo xam ne soo ñëwee da ngay gis ne lii day bokk na ca yaakaar ya gën a màgg ya lay teeru ndax la chaque ne doomu aadama la gën a am solo ci alalam lay dem di ko denc ci ay trésor mbokk loolu yeneen bi wax abu musa noonu it la ko waxe kii di abu zar al xifaari mu ne sama xarit ba day ca mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma naay baril di wax la hawla wala quwwata illa billah muy dénkaane bu mag di zikr bu mag boo xam ne làmmiñ ñi dañ koo war a wax waaye xol yi it war koo gëm mbokk lii caabi la boo xam ne dalay génne ci mboole mi xat-xatu adduna ak xat-xati àllaaxira jëm jëm doomu aadama bi heure bi wax la hawla wala quwwata illa billah lan mooy la hawla wala quwwata illa billah ay la xawla amul kenn ku mën a wëlbati lu kenn nekke na doon loolu ak ñàkk la na doon loolu ak réer la na doon loolu feebar la na doon loolu fitna bu mën a doon amul kenn ku ko mën a wëlbati waaye amul kenn ku la mën a jotele ci xéewal bu mën a doon ci xéewalu àdduna na doon loolu way jëkkër la doom la alal la pal la ak lu mën a doon lu dul yàlla subhanahu wa taala la hawla wala quwwata illa billah heure bu ko ab jaam waxee mi ngi seddali ci kanamu boroomam aajowoo gi mu aajowoo suñu boroom suñu boroom boobu nga xam ne nii mboolem li nekk ci kaw asamaan yeeg suuf lépp a ko aajowoo ca moo ñu waxoon ay yéen nit ñi xam leen ne ñu aajowoo ngeen jëm ci seen boroom amul kuy dox ci kaw suuf lu dul alxayyul qayyum moo koy taxaw loolu nag mbokk day tax ba heure boo xamee ni nii jurit bi loolee muy wax ca làmmiñam wa yegg na ca biir xolam ca mooy la xawla wala quwata illa billah day doon ci moom benn yóbbal doon ci moom benn ngànnaay heure bu taxawatee ci kanami ay jafe-jafe heure bu taxawatee ci kanamu ñu koy tëkku heure bu taxawatee ci kanamu lu mu mën a doon ca kaay ñu déglu góor ak jigéen benn xissa bi amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne boo demee ci téere tafsir yu bëri dañ ko fa fekk benn sahaaba bu ñu wax Awf ibn Malik al Ashja'i dafa am ay noonu l'islam yoo xamee ni nii dañoo jàpp doomam bi ñuy tudde Salim yóbbu ko def ko jaam yóbbu mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama doom Salim day yéefére jàpp nañ ko te man yow mi yàlla yi man damaa ñàkk moo mu doon taxaw moo mu doon dimbali yonent bi alayhi salatu wasalaam na ko ay boo demee muñal xanaa xamoo ne kër yonent bii nga fekk si tey benn muddu ci pepp moo fi fanaan nga la way bokk déglu leen lii bu baax yonente bi alayhi salaam na ko muñal ñàkk gi ngay wax xamal ne tey kër yonente bi benn mudd pepp loo xam ne ñaari kilo la à peu près moo fa daan ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk kii mooy sunu reyukaay bu mag ba mu ne ko demal muñ maa ngi lay dénk boo demee yàq sa soxna ngeen di baril di wax la hawla wala quwwata illa billah kii nga xam ne nii moom mooy Malik dellu ca soxnaam sa wax ko li yonent bi wax soxna si na ko ah lim la digal day nekk na loo xam ne yiw la ay kenn amul pexe ak kattan ku dul yàlla loolee bañ ca saxe ñu tëdd ba benn guddi rek doom ji daal di fëgg bàyyi ci bàyyi bi génn gis ko mu jiital gileem yu bari mu ne ko lii nag mu ne ko man day fan ma yeewoon laa nekk di kër kër yi ba yàlla dimbali ma ma tekkee ko ci guddi gi ma rungu jurub noon yi indi ko mu ne ko waaw duma ci laal dara xëy suba dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti li ko la nga xam ne mooy li xew yonent bi ne ko yóbbul gileem yi seen gileem la lii yenn ci bu fassiru na yi ñuy ne la yàlla di wax naan wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja mi ngi wàcc gannaaw histoire bi ay yéen mbokk julit sahabatul kiram ñi ubbi woon penku ak sow seen gànnaay bi rëy bi ñu yoroon mooy la hawla wala quwwata illa billah xam nañ ne pexe kattan ci loxo yàlla la nekk moo tax keroog ba ñuy dëkk empire yi gënoon a mag ci jamono jooju de faris ak ruum amuñu woon benn déngi-déngi xol ngir xam nañ ne ñi ngi dem ci kattanu yàlla jalla wa ala loolu moo tax ba ñi ngi leen di dénk ngal la way ngeen baril la nga xam ne mooy zikrullah waaye rawatina li yonent bi alayhi salaam dénkaat yi nee na amul benn jurit bi taxaw ci kaw suuf xëy wax subhanallah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah lu dul yàlla baal ko mboole mi bakkaaram même bu ay bakkaaram ëppoon la nga xam ne mooy puurit bay jóge ca barbe ya nekk ca géej ga mbokku zikru la hawla wala quwata illa billah war nañ koy baril fu ne di ko baril waxtu wu ne waaye nag rawatina kii nga xam ne mooy ubaada ibnu samit nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam day nee na ki tëdd ci lelo lalam di nelaw ba mujj mu yeewu ci guddi gi bi mu yeewoo mu ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir daa dina alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah mu ne kaddu yi day koo xam ne wax na ko su jéggaloo yàlla yàlla jéggal ko su ñaanee yàlla yàlla may ko su jógee daal di jàpp julli yàlla dana nangu ak julleem loolu mbokk mi ngi noonu ñu góorgóorlu kuy nelaw ba yeewu ci guddi gi wax ko da ngay jogom jogo la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir alhamdulillahi wa subhanallahi wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah jéggalul sa borom ñaanal sa soxla continuer say nelaw wala nga jóg julli yàlla dana nangu sa julli beneen xadis a ngi nii omar ibnu xataab radiallahu anhu dañ ko nettali nee na képp koo xam ne yaa ngi dégg aji nodd mu ne allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar mu ne ashhadu an la ilaha illa allah ñaari yoon yow it nga wax ashhadu an la ilaha illa allah ñaari yoon ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon nga wax ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaari yoon bi muy wax hayya ala salaa kaay leen ñu julli yow looy wax la hawla wala quwwata illa billah ngar la waay yow soxna bi nekk sa biir waañ ngar la waay yow mi nekk ci sa biir usine ngar la waay foo mën a nekk soo déggee aji nodd ji di nodd ànd ak moom di wax la muy wax ba mu des hayya ala sala foofu damay wax la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah di ñeenti yoon kon mi ngi noonu yaa ngi koy wax ci biir nodd gi yeneen ci bari islam nee na bu pare wax allahu akbar allahu akbar yewit nga ne allahu akbar allahu akbar mu ne la ilaha illa allah nga ne la ilaha illa allah min qalbihi daxala aljanna nee na nga wax la ilaha illa allah ci bi nga koy wax mi ngi jóge sa biir xol loolu it muy wane na mbokk zikr yooyu ñuy sax di ko wax julit bi nekk war naa laaj lan lay firi ba nga juddoo ba tey yaa ngi wax subhanallah lu muy firi alhamdulillah lu muy firi la hawla wala quwwata illa billah lu muy firi loolee moo tax yonent bi ne boo ko waxee mu jóge sa biir xol day booy dee di tabbi ajjana yal na yàlla yombal ñu ko hadis boobu muslim soloo na ko ay yéen mbokku julit kii nga xam ne mooy abdullah ibnu zubayr dangaan def day heure bu salmali ci julli wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir la hawla wala quwwata illa billah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين walaw kariha alkafirun zikr bi da ko daan wax gannaa ba mu ne kaana rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam yuhallilu bihinna dubura kulli sala mu ne ñun day heure buñ masaan julli ci gannaaw yonente bi sal allahu alayhi wa sallam heure bu sëlmali daanu ko yëkkate wax ko ñun ñëpp ñu koy dégg ala kulli xaal mbokk ba tey yaa ngi gisaat place boo xam ne wax fa la hawla wala quwwata illa billah lu am solo la mooy gannaaw bi nga sëlmalee sa julli mi ngi noonu waaye mbokk jullit bu ñu delluwaatee encore sunu yeneen sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji nga xam ne bi muy génn këram wala soxna si nga xam ne ba muy génn këram nee na bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah muy kaddu yu gàtt bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi génn ci turu yàlla maa ngi wékku ci yàlla amul kenn ko am pexe ak kattan ku dul yàlla su boobaa malaaka yi daan na ko yow day fegal nañ la la nga doon dox musal nañ la ci lu lay lor jubal nañ la ci yoonu njub ku fiita wa wuqiita wa huday wa hudiita di ñetti xiiwal yu mag yu la def ba pare bépp cheytaane bu la siin day daw daal di day teggi abu daawud soroona nii ak tirmisi lii di ay place yu mag yoo xam ne gannaaw ba ñu waree baril di wax laa hawla wala quwwata illa billah fu ñu mën a toll waaye nga la waay mbokk bàyyi ci xel heure booy nelaw ba yeewu heure boo déggee aji noddkat ji heure boo sëlmalee sa julli heure boo xamee ne yaa ngi génn sa biir kër loolee di mbir yoo xam ne en place yu kawe la ni ñu fa war a tudd suñu borom ay yéen mbokk julit gëmal ne yàlla subhanahu wa taala mooy dogal lépp yàlla ci mbir yépp ci yàlla lay dellu wa ilayhi yurjaul amru kullu lépp ci loxo yàlla la ca doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne xamuñu loolu ña nga jël leneen di ko yaakaar ci du yàlla jël leneen di ko ragal ci du yàlla ba tax ñu leen di topp bàyyi ndigali yàlla xoolal la suñu borom wax ci ñoom borom bi nee na wa min annaasi man yattaxisu min duni illahi andaadan yuxibunahum ka xubbillah waladina amanu ashaddu xubban lillah walaw yara alladina zalamu is yarawna alazab anna alquwata lillahi jamia wa anna allaha shadidu alazab am na ci nit ñi ñu jël ñoo xam ne ñoom la ñuy sukkandiku di leen ragal jàpp ne mën leen leen ñoddil lor wala ah mën nañ leen ñoddil xéewal wala dàqal leen lor suñu borom yàlla mu ne cay tooñkat yi mbokk tooñkat mun ta paase jàmm bi yàlla bind tàgguwul kenn melal ko na ko neex indi ko ci kaw suuf mu dem ba tol ne baayam wala tol ne yaayam di ragal kañeen ku dul yàlla wala di yaakaar kañeen ku dul yàlla wala di xettilikoo ci kañeen ku dul yàlla suñu borom yàlla mu ne tooñkat yooyu bi suñu demee yowmal qiyaama daan xam ne ndekete mboole mi kattan ci loxo yàlla la nekk la hawla wala quwata illa billah loolu mbokk suñu borom nee na du ñu génn biir sawara loolu moo tax ba nga la way yow julit xamal ne sa borom yàlla subhanahu wa taala heure boo ko wóoloo wékku ci moom yàlla dana la doy jox nañ ci misaal yu dul jeex ci téeram bu tedd bi Muusa alayhi salaam génn na bani Israil ñuy daw firawna kàccoor bu mag ba dem ba sus ci géej gi firaw na jóge fële ak armée boo xam ne doy ñu leen sax am xëy ñi ànd ak Moussa ñëpp tiit inna la mudrakun tey rek la ñuy alku firaw naa ngi ñëw danañ danañu rey ñun ñëpp waaye Moussa lu mu wax kalla inna ma'iya rabbi sayahdin déedéet maa ngi ànd ak sama borom dana ma jub dana ma jubal yàlla na ko dóoral géej gi mu dóor géej gi géej gi xar ñu daal di jàll dem te foofu mbokk mën nañu wax ne yaakaar zéro zéro zéro amatu fa woon géej gaa ngi nii firaw naa ngi nii waaye gis ngeen foofu bañ ko tolloo it kattanu yàlla moom sunu wala fii ñu naan mi ngi nekk diggante xacc ak dóor loolu tax julit lu mbir mi ñàng ñàng lu mu xat-xat bul dindi sa yaakaar ci yàlla saxal ci la hawla wala quwwata illa billah mbokk bu doon kenn danay ñàkk yaakaar yeneen ci yàlla yunus sa keroog bam daanoo ci géej gi benn baral ñëw won na ko yàlla wan na doomu aadama ay façon baleine bleue yoo xamee ni nii trente mètres dañ ko def doomu aadama lanc lañ koy def ab lanc baleine bi ñëw lanc ko te noonu la ko yàlla waxee faltaqamahul huut mu dugg ci biiru baleine bi waaye ndax dindi na yaakaar ci yàlla mu ne yàlla laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla kenn yeewul ñu ko jaamu ku dul yow sell ñeel na la bokkoon naa ci tonkat yi suñu borom mi borom baleine di borom géej jox beneen bu ordre mu génne ko mu yóbbu ko ci géej ga borom bi daal di koy aar ba mu wér mu doog ko yónneel fa mu ko yónni mbokk doomu aadama bi ndax mën nga nekk prison bu gën a garaaw prison boobu ndax mën nga nekk xat-xat bitim réew bu gën a garaaw boobu ndax mën nga nekk lalu hôpital bu gën a garaaw boobu ca mooy fa nga xam ne fa la yuunu sa te doon loolu mbokk ay misaal la yoo xam ne ci téeméeri misaal yoo xam ne suñu borom yàlla wan na ko ñu wan nañu ko ci téeréem bi mu lay jàngal ne kaw ni bi yëpp ak lu fiy dox ak lu fiy naaw ak lu fiy fenk ko so mbindaa fanu yàlla la ci loxo yàlla la nekk munta jëriñ munta lor illa bi iznillah wan naw ne ko keroog ba yéeféri yeewe ibrahima sànni ko ci biir sawara ba sunu borom ne ko yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim ay sawara nekkal jàmm ak xéewal ci ibrahima loolu mbokk la jurit di gëm laa hawla wala quwata illa billah su ko defee ngal la heure boo nekkee ci xéewal barilal di wax laa hawla wala quwata illa billah boo nekkee ci jafe-jafe barilal di wax laa hawla wala quwata illa billah te it di wax joo xam ne gëm bi nga koy gëm mooy tax ba yàlla moom nga xam ne lépp ci loxoom la nekk nga déggal ko topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ca inna allaha maa allazina taqaw wa lazina hum muhsinun yàlla nga ànd ak ña ko ragal ci rafetal mbokku kaddu la hawla wala quwata illa billah mi ngi noonu julit bi nga xamee ne ni gëm na ko dootul ragal keneen ku dul yàlla lu tax la hawla wala quwata illa billah mooy képp koy ragal kattanam googu yàlla ku ko dénk munu caa lor abadan illa bi iznillah loolu tax suñu borom saxalal nañu njabar day am na waaye borom bi mu ne wa ma hum bi daarin bihi min ahadin illa bi iznillah da nga gis benn waay ci ñàkk xamam ma nga takki béjjeen cuur lu nekk pour ragal ko ko njabar ana lu teewal nga wax laa xawla wala quwata illa billah ñaan yàlla musal la ci loolu mbokk ki gëm laa xawla wala quwata illa billah dootal yaakaar keneen ku dul yàlla ndax day gëm na àdduna yëpp buñ daje woon mënuñu koo jëriñ misqaala zarra lu dul lu neex yàlla ndax laa xawla wala quwata illa billah mbokk ki gëm laa xawla wala quwata illa billah bépp mbir bu mu jëm bëgg caa dugg du ca tiit du ca sikk sàkka ndax day jàpp ne du kattanam mais mi ngi dimbali koo boromam laa xawla wala quwata illa billah mbokk julit bi gëm laa xawla wala quwata illa billah résultat bi mu am bu ko bàkkoo ndax day xam ne lu mën a am laa xawla wala quwata illa billah bu dee xam-xama am na ñu ko jëkk ci daara ji mujj ko ci ci xamuñu li mu xam alal la am na ñu ko jëkk ci marché bi mujj ko ci amuñu li ñu am bu dee ni ab sëy laak njaboot ak lu mu mën a doon am nañu ko gën a taaru téeméeri yoon amuñu kon laa xawla wala quwata illa billah looloo tax julit bu baax ba ba mu dajeeg saay saay ba ca seen tool ya saay saay bi di ko puukuree ab toolam mu ne ko lawla is daxalta jannataka qulta ma sha allah la quwata illa billah ana lu teewoon bi ngay dugg sa tool nga ne lii mooy li soob yàlla amul kenn ko am kattan ku dul yàlla waaye mbokk yow mi nga xam ne da ngaa gëm laa xawla wala quwata illa billah loola mën a dal ci échec yi adduna doo ci doon kuy ñikki koo xam ne da ngay tiisu bay rey sa bopp ndax da ngay gëm ne lii kat man la ma waroon def def naa ko échec naa ci examen bi la hawla wala quwwata illa billah tukki naa ooma la hawla wala quwwata illa billah maa ngi nii amaguma doom amaguma jëkkër la hawla wala quwwata illa billah amaguma lu mu mën a doon la hawla wala quwwata illa billah gannaaw ba nga defee li nga war a def da ngay tranquille ndax da ngay gëm ne la hawla wala quwwata illa billah ngan la waayu mbokk nañ ko def suñu gànnaay la gën a màgg nag lam ñuy jëriñ mooy àllaaxira jee ñu gëm ñu jëm ñun ñépp ñu bokk gëm ne la hawla wala quwwata illa billah wallahi kenn mënu laa musal ci sawara ku dul yàlla du muhammad alayhi salaam du ibrahim du muusa du kum mën a doon kenn mënu laa musal ci sawara ku dul yàlla kenn mënu laa tabbal ajjana ku dul yàlla laa hawla wala quwata illa billah mbokk mi ngi noonu denc ko moo gën denc milliard ca banque ba loolu la ko yonenti ba waxoon kanzun min kunuzil janna nañu saxal sunu lammiñ ci loolu nañ saxal suñu lammiñ ci bépp effort bu ñu jëm ci lépp lu ñu mën a dal ci lépp lu ñu mën a yaakaar ci lépp lu ñu mën a am ci lépp lu ñu mën a ñàkk la hawla wala quwwata illa billah ay suñu borom la hawla wala quwwata illa bik yàlla mi nga xam ne moo am pexe kattan yàlla nañuy wëlbatee ci lépp lu ñuy lor adduna yóbbuñu lépp loo xam ne dañ cay jëriñ lépp lu ñuy lor suñu wàllu diine yóbbuñu ca la nga xam ne dañ ciy jëriñ yàlla na yàlla rafetal suñu mucc yàlla na yàlla musal ñu ci fitna yi adduna ak fitna yi alaxira musal ñu ci fitna yi noonu lislaam yi wàcce jàmm ci dëkk yi nga xam ne dañoo doon ay guerre yàlla na yàlla woomanal ñi nga xam ne dañoo ñàkk ci ñun yàlla na yàlla saafara ña feebar ci ñun yàlla na yàlla gindi ñi nga xam ne dañoo réer ci ñun yàlla na yàlla wërsëgal ñu fi dunya xasana wa fi الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين